أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته balaa ñuy commencé ñooñu ci buntu jàkka ji di waxtaan yéen ñooñu ci buntu jàkka ji di waxtaan ngeen bàyyi xel yéen a ngi ci buntu jàkka te dañuy def dars mbokk yi ñu ngi ak yéen ci suratul baqara tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu war a jël aaya 250 251 252 mu nekk ñetti aaya yu ñu sunu borom subhanahu wa taala di nettali diggante bëre dëgg ak fen diggante tawxiid kennal yàlla ak bokkaale diggante dëgg ak caaxaan borom bi subhaanahu wa taala di ñu nettali ci aaya yi istuwaaru daawud rey gi mu rey jaalut naka la amee mbir yooyu mbokk yi bokk na ci ñetti aaya yi nekk sunu kanam ak leneen lu yàlla subhanahu wa taala di ñu jàngal ci ñettu aaya yi ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala borom xam-xam yi nee nañ lamma iltaqa al jaysaani jaysul imaani wa jaysul kufr ñu ne ñaari armée yi ba ñu jàkkaarloowee ñaari équipe yi kuréel gi nga xam ne yàlla rek subhanahu wa taala mu lañ teg seen kanam moom lañ gëm ak mbooloo mi nga xam ne ñoom ay yéeféer lañ seytaane iblis lan àndal nee na ci jamono yooyu gis nga nit su bewee dooleem tax mu bew wala kàttanam wala mën-mënam wala alalam lenn ci yooyu tax mu bew day commencé di jalgati dafa ne ñépp moo leen mën bi ñaari kuréel yooyu jàkkaarloowee ci benn place bu yaatu lan moo xew dafa am benn waaye bu tudd jaaluut te nga naan ko Goliath ponkal la woon ku njool la woon am doole daanaka ponkal na ponkalaay goo xam ne bu dëggee tànkam bi nii day gasu pax su ci nit duggee du ko mën a génne ndax du mën a dugal loxoom génne la ndax ngandaay bi maa su dëggee tànk nit mën na nëbbatu ci ci fi mu dëgg tànk bi ndax ni mu ngandee bi ñaari équipe yi ne kacc jàkkaarloo ñaari kuréel yi moom mu daal def noonu champion yi di def mu taxaw ci kanam ne ku ma ñeme maanaam balaa ñaari équipe yi roofoo jàkkaarloo dañuy njëkk a def face à face ëffal bi mu ne ku ma ñeme daal di génn ci kanam fa xaraja lahu daawud ci ci beneen équipe bu gëm yàlla bi mbooloo mu ndaw moomu kuréel googu benn xale bu ndaw génn fa bu naan daawud mel ne mag mu am juróom benn fukki at xale bu am 10 ans ne ko kaa ñu bëre man ak yow fa xaraja lahu daawud min jayshi taalut jaalut mu ngi bokk ci kuréelu ah jaalut mu ngi bokk daawuda mu ngi bokk ci kuréelu non non soxla ma julli di tur laa soxla daawuda mu ngi bokk ci kuréelu taalut taalut mooy buur bi yonent boobu mooy kan yonent bi faloon taalut mooy Samuel chaque jour ñu nekk di répéter tur yi xanaa du ma am ku ma may 30 portable ma teg fii su ma posé question ku xam rek ma jox ko benn ma toppandoo Cheikh boobu ci émission raaya ñoom gars yi duñ jàpp affaire yi ndeysaan fa xaraja lahu daawud xam ngeen ne alquranul karim buñ jàngee baqara ba naas yàlla subhanahu wa taala nettaliwuñu lam yaqussu llahu taala alayna shay'an an an kayfiyati qatli daawud jaalut yàlla nettaliwuñ ci alquran dara ni daawud a reye jaalut yàlla nettaliwuñ ko lu tax li adamil faida alkabira minha ndax xam ni daawuda reye jaaluta xëy na baax na waaye dëgg-dëgg boo ko xamul du la wàññi dara du wàññi sa diine dara amul importance daal loolu tax l'islam li muy nettali nit ñi chaque jour lu am importance nekk farata nekk sunna loolu day leer nañ mais am na mbir yoo xam ne ñàkk koo xam du la wàññi dara ci sa diine mais da ngay gis tey jullit yi di sonn ci loolu ah yaayu Moussa nan la tudd ah ay yoo xam ne ci diine ji amul benn importance ñoom ñaar nee na ndax njëriñ bi ci war a nekk ci rey gi daawuda rey taalut moo tax yàlla nettaluñ ko waaye wa xulaasatuha kama yeli ci tënk suñ ko doon leeral mi ngi mi ngi mi ngi nii nee na kaana waalidu daawud fil jeyshi taalut papay daawud dafa bokkoon ci armée taalut ñooy ñuy jullit yi papaay daawuda dafa bokkoon ci armée bi kon lan ngay dégg fii lan la ñu mën a dégg fii kon bu ñu ne papaay daawuda mu ngi woon ci soldaar yi daawuda comme daawuda ni mu nekkee soldaar papaam mu ngi woon soldaar ànd ak moom ci rang bi est-ce que papaam kese la ndeysaan walahu sittatu abna maahu waxuma la papa ji mi ngi ci terrain bi mi ngi ànd ak Daawud waaye juróom benni doomam a ngi ci terrain bi ànd ak moom kon kër ga ku fa des ndeysaan moo tax mbirum ngëm yàlla du ay waxu kese ngëm yàlla ay jëf la xoola góor gi bi mu gëmee yàlla ñu woote jihaad dëgg ak fen di tam caloo nar a jàkkaarloo mu daal di génne kër gi yëpp daaw daa ci gënoon ndaw amoon na juróom benni doom ak moom mu génne ñëpp xanaa mu noonu na leen a xaaj sax bu doon fii la soxna si ne la laa ilaha illallah yéen ñëpp bu ngeen dee nag man fu ma jëm wala te ngaa yéen ñe mënu ñaar mënu ñoo dem ñeneen ñi des wala yow tee ngaa toog yónni xale yi waaye gis nga mbir mi mbirum àjjana la mbirum àjjana su teewee kenn du bëgg mbirum diine la mbirum àjjana mbirum pas-pas ndeysaan nee na wa maahu moom papa ji ismuhu isha bi shin du isa bi ayn wa kaana daawud asgaruhum daawuda moo doon mu gën a tuuti ci xale yu góor yi góor googu jur wa kaana yar al ghanam daawuda lu doon métier da daan sàmm ay gàtt gis ngeen métier yonent yi yonent bu nekk am nga lu nga def yonent bu nekk def nga dara tey tey tey fii nu toll rek ci àddina bi ngay gis nitu diine bu dul def dara toog rek toog ñu ne kii moom luy métier ñu ne moom mooy ñaanal nit ñi mooy ñaanal nit ñi pour nit ñi dem aljanna te pourtant même kilifa diine yi ci Sénégal ñi nga xam ne ñoo soncoon yoon yi ñoom dañ doon liggéey dañ doon def dara ñoom dañ doon liggéey loolu moo tax ñu dëkk ci àll bi dëkk si wuñ Dakar daara ja tool ba jàkka ja daara ja tool ba jàkka ja jaara ja tool ba jàkka ja xamuñu leen boo leen fekkul ci daara ja ña ngi ca jàkka ja boo leen fekkul ca jàkka ja ña ngi ca tool ba waaw gis nga tey rek laa duna yàqu ba ngay gis kilifa diine passeport wala carte d'identité profession marabu xam ngeen luy marabu benn picc bu yambare la bu dul def dara moom la tubaab bi tuddee sëriñ yi loolu musiba la picc bi boo ko fekkee tefesu géej day taj dafa tayal ba day aj benn tànk bi def nii moom lañ dessiné ci saabu bi sax saabu bi ñu tuddee marabu moom lañ ci dessiné ah jërëjëf keneen na foofu lay liggéeyee jërëjëf jërëjëf suñu borom dafa yambare ba nii lay def xam nga lu muy lekk lu ñu lekk ba pare wala lu géej gi rey génne ko parce que moom du def effort pour ut lu mu lekk gis nga ñii tamit loolu musiba la xoolal mbani bopp yonent daawudaa ngi nii da daan sàmm ay gàtt yonent yàlla muhammad sàmm na gàtt yonent yàlla muhammad commerce na li indi diggante ma xadija sax fu mu jógee ci commerce ci commerce la jógee mu ne moom daawud kaana yara al ganama wa kaana li nabiyihim dur'un fa awha allahu anna man istawa alayhi dur'uka huwa allazi yuqa yuqatilu jaalut ba jaalut a génne ne ku ma ñeme ah neexut de ponkal moo xam ne leer nga ni xam nga ni kii moo la mën dëkk bi yëpp xam nañ ne kii moo fi mën mbooloo mi yëpp xam nañ ne kii moo fi mën mu génneeg jaaseem ne ku ma ñeme jaasi joo xam ne daanaka boo ko tegee fukki ponkal attanuñu ko mu génn yor ko ne ku ma ñeme kooku neexul ne maa la ñeme de yàlla daal di wax yu yonent ba ban yonent ah déedéet daaw di nekkagul yonent taaluta du yonent buur la samwiil mbokk yi samwiil yàlla daal di wax yu samwiil ci saase ne ko sa mbubb bi ngay sol di geer yi mbubbu geer bi bi ngay sol képp ku mu xej ci mbooloo mi mooy xeex ak daal jaalut ñu commencé soldaar yi xool xool soldaar yi maanaam comme waa ji nee na ku ma ñemee ñu ñoom day xaar mbooloo yi mbooloo dëgg bi am ku fa génn ñëw jàkkaarloog moom xeex bi war a commencé léegi nag yàlla wax yu yonent ba Samwil ne ko sa mbubb bi ku mu xej ci mbooloo mi rek kooku mooy xeex ak jaalut ñuy nat mbubb mi ba mu egg ci daawud daawuda sol ko mu net kenn ñu ne ko yow la ndeysaan avant xeex bi di am boroom xam-xam yi ne nañ daawud dafa génn fi mu doon sàmm di dox jiital xar yi mu jékki-jékki gis xeer bu rëy xeer bi daal di koy woo ne ko jël ma nga dugal ma ci sa mbuus ndax yow mii yaa nar a rey jaaluut waaye ci man mii nga koy reyee kon bu ma fi bàyyi mu daal di jël xeer bi dugal ci mbuusam bi jaaluut a waxee ne kan moo ñemee ñu natt mbub mi mu yem ci moom ah léegi moom mooy génn lan la jaaluut a yor jaaseem moom mu daal di jël lance-pierre dugal loxo bi ci mbuus mi daal di génne xeer bi daal ko ciy dugal waa ji di riir di ñëw rek mu taaw yi bàyyi ko ci bopp bi waa ji sedd koy daalu ci suuf gis ngeen kéemtaanu yàlla ndeke kon dëgg du affaire doole du arme du mbooloo te dinañ gis léegi mbooloo mi ñaari mbooloo yi nan lañ tolloon mbooloowu jaaluut ak mbooloowu daawuud taaluut ñaari mbooloo yi nan lañ tolloon kon chaque jour mbir mi du mbir mbooloo yi nga Sénégal bokk na ci li alak nit ñi nit ñi jëm dem ci ay caaxaan mooy mbooloo mbooloo mi bëri na nit ñi ne ooy mbooloo mi amul fen lii moom dëgg la déedéet bu doon loolu la kay kon iblis iblis moom dëgg gi xam ngeen ne iblis ëpp yàlla mbooloo de wala wala ni ma joxe benn misaal bu gàtt rek ñii nag stade bi ñu ëpp nit du ngeen tontu ñu ne waa stade bi ñëw bu nit waaw kay mu ngoog mu ngoog loolu rek doy na misaal baa ngoog kon du mbiru mbooloo du mbiru doole du mbiru xaalis dëgg la dëgg mbir mi dëgg kese la dëgg fu dëgg nekk rek loolu la lu ñu tuuti tuuti bu fa dëgg nekkee loolu la lu ñu néew néew bu fa dëgg nekkee loolu la mbir mi mbirum dëgg la du mbiru mbooloo du mbiru ay nit du mbiru ay am-am déedéet mbirum dëgg la foog dëgg yitteel nu ndax dëgg moo tax yàlla jóg alxaqu min rabbik amul leneen ndeysaan jaal daawuda daal di rey jaaluut fa nasara allahu jaysa taaluut yàlla dimbali armé taaluut wa kaana adadu afraadihi salaasu miata wa arbaa daawuda mbooloo mi mu nekkoon ñetti téeméer lañ ak fukk ak ñett tolloog tolloog li mu badar moo tax yonent bi saa salaam keroog ca badar dane yéen yéen lim bi ngeen am tey moom la armée daawuda amoon armée taalut lim boobu lim bi lay tollool ñetti téeméer ku ko ñett ndeysaan loolu la yonent bi wax keroog waa badr qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam ahla badr innakum ala iddati ashaabi taalut yéen ni ngeen tollu tey ñetti téeméer fukk ak ñett ca jamono taalut lii la yàlla amoon mu jàkkaarloog armée taalut bi nga xam ne ñoom xam ngeen ñaata lañ salaasu salaasu mi'a salaasu mi'a wa arbaata asara rajulan salaasu mi'a wa arbaata asara rajulan non non déedéet ñoom duñ loolu jullit yi ñoo nekkoon salaasu mi'a wa arbaata asara ñetti téeméer fukk ak ñett amma ñële ñoom kaanu miatu alf miatu alf téeméeri junni ak ñetti téeméeri fukk ak ñett ñaata lañ ah miatu alf ak ñetti téeméeri fukk ak ñett ndeysaan loolaa doon jàngale barki démb histoire muutata muuta jullit ñi benn jullit bu nekk mu ngi doon xeex ak juróom ñaar fukki yéeféer bisu mu utata benn jullit bu nekk boo divisé mbooloo jullit yi jullit bu nekk benn jullit mi ngi xeex ak juróom-ñaar fukki yéeféer benn juróom-ñaar fukki yéeféer ndeysaan ngeen xam ne kon mbir mi du mbiru ay mbooloo du mbiru arme naan diw arme yi mu yor xool leen Israël adduna bi yëpp dañoo ragaloon Israël mais barki démb guerre bu mujj bi ak waa Palestine leer na lu musul am moo am mooy biir capitalu Israël ay obi di fa daanu ba fi mu nekk nii seen ministres yi ñu ngi démissionné parce que waa Israël dañu tiit lu musul xew te partout ci biir Israël obi di daanu ay attentat di am ci biir capitale bi fan lañ mujj mooy ñuy ñaan Amérique Angleterre nañ gaaw arrêté guerre bi. fi mu nekk nii woo nañ seen premier ministre ne ko ñëwal nga wax ñu lan mooy signification guerre bi lan moo ko waral pourquoi nangam lu tax nangam lu tax nangam ba am nañu démissionné te xoolal guerre bi mu jeexee waa Palestine ñoom dañ doon dañ doon jubilé te ñoo ëpp lu dee de mais dañ doon jubilé dañoo kontaan ñee dañ doon jooy parce que seen doom yu ñàkk moo tax diggante jullit yi ak yéeféer yi du benn jullit moom ñaar lay teg ci kanamam dugg aljanna ñu rey ko mu dugg aljana suñ ko bàyyee mu samp kàddu yàlla keroog ba saxaaba yi gëmee loolu dañoo samp islam ci kaw suuf jullit am dundam amul perte suñ la reyee nga dugg aljanna buñ la bàyyee nga samp kàddu yàlla lan mooy problème amul perte ma mais keroog ba jullit ñi gëmee loolu lañ am ndam incha allah mbokk jullit yi kon loolu benn ubbi la woon pour ñu jël ay ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu sabaat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين برم بنينا ولما بنغا خمنتنا برزو جاكارلو ناني ñaari kuréel zaharu jàkkaarloo nañ fi maydaanil maarika ci terrain guerre bi ñaari kuréel yi jàkkaarloo nañ wa jaalut qaidu quwaatal amaliq nee na jaalut mooy généralu yéeféer yi ñëwoon di xeex ak armée Taalut ba ñaari kuréel yi jàkkaarloo Jaalut wa junuudihi ak ay soldaaram xam ngeen ne yàlla subhanahu wa taala bëri na ay buur yu muy alak keroog ba mu leen alak dañoo génnoon ak seeni soldaar Firawna keroog bu muy génn di topp Moussa ñan laa ndaloon ay soldaaram yàlla mu ne fa axasnaahu wa junuudahu gis nga ma jàpp ko ak soldaaram yi jaaluta mi fa lamma barazu li jaaluta wa junuudihi gis ngeen ba jaalut ak ay soldaareem génne génnug lan ndax dañuy kawel kàddu yàlla lan moo leen génnal lan lañ bëgg fay kàddu yàlla ndeysaan jaalut nag fan la bokk ah jaalut fan la bokk jaalut qaalu julli di ne ñu gisee armée bi ni mu bëree ñaata lañ miatu alf qaalu julli ñi daan ne rabbana gis ngeen gis ngeen jullit waxuñu waxuñu keneen de ba ñu gisee loo xam ne mënuñu ko dékku rek fan la ñu daw laqatu ji seen borom boo nekkuñu fa naan seere leen ndombo yi seere ana loppitaake bi ana ana gis ngeen loolu amul njëriñ fii le gars yi bu ñu bu ñu tiitee lu ñu la fu ñu jëm commencé diw sotteeku ay saafara waaw sotteeku wala bëre bi ba la ñuy bëre lu ñuy def dañuy sotteeku daanaka quatre heures de temps di sotteeku ay gàllaaj mbir mi du gàllaaj de mbir mi imaan la billahi ngëm yàlla du gàllaaj wallahi ngëm yàlla moo mën gàllaaj wallahi la azim ngëm yàlla moo mën gàllaaj gis nga ñii bañ jàkkaarloog jaaluta ak ngandaayam ak armeem fan la ñu daw laqatu ji ci seen borom ñu ne rabbana yow sunu borom afriq alayna sabran na nga sotti sunu kaw muñ muñ muñ lañ laaj aaya barki démb bi ñu mujjee tafsir samedi aaya bi fan la jeexoon ah inna allaha asabir voilà asabr ay baa ngi jeexoon ci muñ xoolal yow yàlla sottil sunu kaw muñ nañu muñ asub asbub asabra fi qulubina yow yàlla dugalal muñ ci sunu xol nañu mën a résister ñi taxaw dékku leen hatta tamla'u falam yabqa lil xawfi wal jaz'i mawdi'un fi qulubina yow yàlla ñoo ngi lay ñaan na nga sotti ci sunu xol yi muñ na fees del ba tiitaangeeg ragal ak trambale génn ci ñun na nga ñu dëgëral bañ ne keng bu ñu buuse tey ndeysaan loolu moo tax chaque jour ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla mënuñoo yem mënuñu yem parce que ku gëm yàlla dafa am lu tax muy xeex dafa am lu koy animé ku gëmul yàlla nag kii dem xeex yi foon jawaram foon ay doomam ne leen nañ daje aljanna bokkul ak ki nga xam ne dane jabaram toggal ma ginaar maa ngi reer si léegi bokkul parce que bi muy génn moom mu ngi jàpp ne warul ñibbisi kii moom dafa jàpp ne dafa war a ñibbisi kan mooy war a gën a sonn ci mbir mi gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñoom gaa yooyu yemuñ rek ci ñaan yàlla pour yàlla na sotti muñ seen kaw waaye ñu ne yàlla wa sabbit dëgëral aqdaamana sunuy tànk yàlla sunuy tànk yàlla na nga ko samp ci suuf si yàlla na nga def ci suuf si a acier bu téye sunu tànk yi bu ñu deltu ginnaaw mukk bu nu daw ginnaaw ba ñu ñaanee yàlla yàlla na leen yàlla may muñ ñu ne yàlla na leen yàlla dëgëral wa sabbit aqdaamana fil ard fi ardil maarika hatta la nahzam zalik ba duñu deltu ginnaaw duñu reculer allahu akbar yemuñ ci loolu ñu ne wan suur naa yow yàlla yàlla ñu dimbali alal qawmil kafirin ci nit yéeféer yi gaa yi seen ñaan bi ñaata mbir lañ ñaan ñetti mbir lañ ñaan bu njëkk lan lañ ñaan muñ ñaareel lan lañ ñaan yàlla dëgëral leen ñetteel ndimbal lu bàyyi ko ci yàlla gis nga ñetti yëpp yàllaa ko yor kenn yoru ko ku dul yàlla amul ku ko yor ci kaw suuf moo tax ñu ñaan ko yàlla subhanahu moo tax jullit soo sonnee soo jàqee soo tiitee loo soxla demal ci yàlla yàlla moo yor lépp moo moom lépp ñii ci xel ci xel téeméeri junni nit ah ak ñetti téeméeri fukk ak ñett buñ jàkkaarloowee lan la xel nangu lu xel nangu ñan ñooy gañee téeméeri junni xanaa sax di nga gis koo xam ne dafa bëgg a boog ñu ne ko yow xanaa gisoo ñi ñu foo jëm ah yow yow de da ngay xaru ci waaw loolu lañ la waaye nañ continuer aaye yi ñu gis bi xeer bi ne crasse fa hazamahum bi iznillah allahu akbar fa hazamuhum bi iznillah fa hazamuhum daaneel nañ leen fa hazamuhum gañe nañ leen fa hazamuhum noot nañ leen fa hazamuhum doyadil nañ leen fa hazamuhum toroxla toroxlal toroxal nañ leen ci lan bi iznillah bi iznillah mooy lépp bi iznillah ci saase rek fa hazamuhum noot nañ armée jaalut ak mbooloo mi waaye lan lañ leen noote ndax kattan ndax pexe bi iznillah ci kattanu yàlla lañ leen nootee moo tax mbir mi du ay du ay du ay bombe atomique tey jullit ñi bu ñu ñeme woon am fit am ngëm yàlla wallahi alazim ay Amérique ay Israël ay France ay Angleterre yi du leen téye ba ñuy toroxal ni jullit di leen partout dans le monde di leen maltraité te li leen di won loolu mooy tey li gën a yées ci àdduna kaso bi gën a bon jullit di lañ fa tëj kaso bi gën a yées ci àddina bi ay yéeféer ñoo ko defar tëj fay jullit wala mooy Guantanamo ñan lañ fa denc ñan ñoo ñan noonu lañ fa denc te yonente alayhi salaatu salaam maa ngi woon leen di wax sànq mu utata xeexu mu utata lan moo ko waraloon benn jullit lañ rey yonente bi ko yónni na yóbbu leetar ñu rey ko yonente bi daan ne jullit yëpp nañ jóg benn jullit lañ rey tey ci àddina bi ñaata jullit la ñuy rey kenn xamul nu mu toll te lan mooy tax ñu rey la terroriste nga boo waxee lu leen arrangé wul rek léegi sax bañ nañ ko ba dañuy yónni avion boo xam ne amul amul pilote yenn saa yi ñu bombardé ay marché xam nga lu ñuy wax dañoo juum amul problème de yenn saa yi ñu bombardé jàkka suñ ne lii nag ñu ne jàkka ngeen bombardé ñu ne dañoo juum parce que avion bi amul pilote quoi moo tax dañoo juum affaire bi jeex na mais benn jullit bu reyee benn yëfër nga dégg adduna bi. même jullit yi seen bopp sax ñooy njëkk a manipuler message bi di ko joxe noo xam ne ñoom seen bopp du ñu xam ne ñoom li ñuy def nii du baaxul waaw jullit dañuy xeex ba xeex seen bopp waaye nañu yëg ne yàlla moo yor mbir yi du kenn wallahi yàllaa ko yor kenn mënalul lislaam dara dañuy sonn rek gis nga lii yàlla di ñu nettali ci histoire yii passé du du yàlla di ñu ko nettali rek ñu déglu ko après mu jeex non yàlla dafa bëgg ñu jàng ci nettali histoire lu muy tekki mooy rabtul maadi min al xaadir wal xaadir lil mustaqbal nettali histoire xam nga lu muy jëriñ mooy nga jël démb xool ko ci tey nga jël tey préparé ko suba bu ñu yàlla di nettali nii ngand armée bu toll nii waaju ngand ju toll nii waaju am doole nii benn xale bu ndaw rey ko bu tuuti mbooloo mu toll nii téeméeri junni ñetti téeméer ak fukk ak ñett gañe leen lu ñu yàlla bëgg a won lan lañu yàlla bëgg a jàngal kon mbir mi du ay mbooloo mbir mi du armée mbir mi du bokk fee mbir mi ci ngëm yàlla la nekk loolu lañu yàlla bëgg a wax mbokk yi yàlla mu ne wa qatala rey na daawudu daawud jaaluuta jaaluut yéen ñi jàng arab lii lañ naan verbe sujet ak complément fi'lu fa'il ak maf'ul bi fi'lu bi mooy lan qatala verbe bi mooy lan fa'il bi mooy lan daawud maf'ul bi mooy lan jaalut wa qatala daawudu jaaluta yañ naan fi'lu fa'il maf'ulun bihi grammaire arabe yàlla mu ne wa qatala rey na daawudu daawud jaaluta jaalut ndeysaan fii la biddeewu daawuda fenqee fii la daawuda amee martaba fii la ko yàlla yëkkatee ah mbooloo mu tol nii buur bu tol nii borom doole ju tel nii xale bu ndaw rey ko layewoo ko lu dul lanceper xeer ci bopp xam ngeen ne xeer bi du xeeru kese ah keroog ca Badr yonent bi saa salaam dafa tibb dànk suuf daal di koy sànni yéeféer yi ñoom ñëpp suuf si dugg seen bët ñu silmaxa kenn xamatul looy def ñoom ñëpp ñu gumba yàlla ne ko wa maa ramayta is ramayta walakin allaha rama du yow yaa ko sànni de du yow gis nga même yonente bi yàlla dafa bëgg a faxas yenn yi ci xelam balaa mu naan man la bu ma ko def lu woon yàlla ne ko du yow de man la gis nga yonent pour balaa muy gis boppam keroog ba ñu reyee Hamza daggate ko luqi bët yi dagg nopp bi dagg lii dagg dagg mu tiim ko yaramam daw mu ne dinaa def juróom-ñaar fukk yéeféen yàlla mu ne ko déet laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir nag gis nga yonent bi yàlla da koy faxas ngir balaa muy yëg boppam balaa mu yaakaar ne moom dara la ci mbir mi yàlla ne ko mbir mi du sa mbir de gis nga ki def lii ñi def lii bu ñu tuubee sax nag ma baal leen gis nga kon loolu lañu war a jàng ne diine du mbiru nit mbiru yàlla la subhanahu wa taala sunu borom mu ne bi loolu amee daawuda yëkkatiku martabaam jóg sunu borom subhanahu wa taala beddeewam fenk ci kaw sunu borom ne wa aataahu llahu lmulka yàlla may ko nguur wal xikmata ak yonent kazalika kaana zalika baada mawti chamwil fekk yonent ba yàlla yónni woon ca dëkk ba tudd chamwil faatu na taaluta buur ba dee na léegi ku fa des daawud yàlla boole ñaar ñëpp jël nguuru sam yonent ak samwil jël nguuru taalut daal di ko koy jox mu nekk yonent nekk buur waataahu llaahu yàlla jox na ko al mulka nguur wal hikmata ak yonent ak xereñ yàlla def nag ko moom moo nekk premier yonent buur takk ñaari grade yëpp yonent la buur la gis ngeen fan la génnee ci benn kër gu néew doole gu tumaranke famille bu bëri waaye mooy caat ànd ak ay magam ànd ak baayam ci xeex yàlla mooy def lu ko neex faalun lima yurid moo tax jullit chaque jour war a xelam war a nekk ci yàlla pas-pasam war a dëgër ci yàlla mu xam ne yàlla mooy def lépp kenn du def est-ce que keroog bi gars yi di génn xamoon nañ ne xale bi moom mooy nekk lii lépp xale bi moom mooy ku ne woon xale bi mooy rey mooy rey jaalut lu ñuy wax kii kii xanaa yéen da ngeen dof ah léegi mu ngi nii yonent ba dee na Samwil dee na taalut dee na yàlla subhanahu wa taala jël na ñaar ñooñu kenn ku nekk li nga yoroon daal di koy boole daal di koy dox daawud sunu borom ne yowma ci loolu de wa allamahu yàlla xamal na ko mimma yashaau la ko soob la ko neex yàlla subhanahu wa taala xamal na daawud li ko neex lu ko soob borom bi ne walawla dafullahi nnaasa baaduhum bi baat bu doon du man yàlla maay def barrière diggante nit ñi maay jël ñii di ko toje bopp ñee maay fekk ponkal mu rëy mu naan kenn mënu ma fee jële ma indi xale bu ndaw mu dóor ko ci suuf léeg-léeg ma joxe ay misaal ci mbër yi dafa am benn mbër bu waxoon ne je taag je cogne keroog la gëj am victoire am benn mbër bu waxoon ne mbër mu ndaw moo fi moytuwul keroog la gëj am ndam am benn mbër bu ne woon buñ ma daanee àdduna tukki ñu daan ko àdduna tukkiwul am koo xam ne noonu xaw ma daanu yàlla daaneel ko allahu akbar gis ngeen ngeen nu mu leeree leer nañ ñu la def amul ñuy sori mu ngi nii yàlla la wallahi gis nga nit keroog bi nga yaakaaree ne yow la yàlla dina xamal ne wallahi du yow li nga xam ne du yow yàlla rek mooy mbir mi di nga daan waa boo daanoo nag mu ne xaw ma daanu mun xaw ma ko langage boobu laa xamut ndeysaan allahu akbar sunu borom bilaay kii ku ko wóoluwul yow dara nan leen wóolu yàlla gis nga yàlla buub lépp jox xale bi buub nguur gi buub yonent gi daal di jox xale bi lu tax yàlla mooy def lu neex faalun li maa yurid lu ko neex lay def moom ñëwul fi ngir def nit ñi yéen ah loo bëgg tey ma defal la déedéet faalun li ma yurid mooy def lu ko neex te moom laa yus al am naa yaf al lu mu def kenn du ko ne lu tax kenn du ko interpellé yow la ñuy laaj yow li nga def pourquoi mais yàlla kenn du ko def day rey sa baay nga ñëw ne jërëjëf alhamdulilah ñu ngi sant yàlla waaw day rey sa pap wala mu rey sa yaay wala mu rey sa sëriñ ñu dem suuli ko ñëwaat ñu jox la kàddu nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ngi koy sant moom borom bi wala doone waaw mais war nañu laaj yàlla mais pourquoi ah déedéet ñu la joxee kàddu ne la bismillah nit ñi ñëwaat nañ jëlal kàddu da nga naan alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm baalun li maa yurid suñ borom subhanahu wa taala allahu akbar mbokk julit yi borom bi ne walaw laa su fekkuloon ne dafullahi nas yàlla mooy jañante nit ñi mooy jël puissance bi bëmax ko ci bële tas ko ah baaduhum bi baad lenn ci ñoom ci ñeneen ñu ne amu ne la fasadatil ardu kon suuf si day yàqu moo tax puissance boo gis mu jóg day jékki-jékki rek yàlla dóor ko martu mu daal di rajaxee ana ana ris ah États-Unis ngi nii di sukuraat ñu ngi nii di sukuraat xoola buur yi fi jaar fan yi ana xadafi ah ana Mubarak ana Ben Ali ana ana ana ayna huwa raisukum ayna huwa ayna wadd walaw la dafullahi nnaasa baaduhum bi baad la fasadatil ard kon suuf si la yàqu ndax da ngay gis kenn ku fi toog daal ne fii ba damay dee ba may dee rek bu ma deewul du ma fi jógee boo dee sax ñu fal si njaboot waaye yàlla mooy jël ay nit bëmax ko ci sa kaw ñu jële la fi wala ñu rey la gis ngeen Xadafi yàlla jël ay nit lan la waxoon danaa danaa leen wax yu bon la doon wax danaa wa balaa balaa balaa ñii sax dafa rey ba doyal li mu rey kenn xamu ko waaye kuy yebo rek di moytu borom bi di moytu tooñ borom xam-xam yi di moytu seen ñaan keroog bi ko góor gi su jotalee bisu àjjuma ñaanal ko ba mu ne sama ba- bu ma dee dama bëgg ngeen def sama bàmmeel comme bàmmeelu yonent bi waa ji daal di koy ñaanal ne ko maa ngi ñaani yàlla bis ñëw ñu rey la sànni la ci saaraa bi sa bàmmeel bu ko kenn tiim looloo ko dal te ñaan bi ak ba mu koy dal mën na fukki at ak juróom bi mu koy ñaanal loolu ak bi ko lii di dal mën na fukki at ak juróom musiba bi dal loolu moo tax mbokk yi ragal yàlla rek moo am solo leneen loo fi gis waxu kese la xumb xumb la rek léegi mu tas lu dul dëgg yàlla gi moom dong moo fi des muy di suñu diine ji borom bi ne walaw laa dafu llahi naas bu doon du borom bi subhanahu wa taala mooy jël nitu tawxiid yi di leen mbëkk ci nitu shirk yi di di dajj shirk kon adduna bi day yàqu kon lépp bokkaale rek moo fi nekk ku bokkaalewul dee mu ne walakin na allaha waaye yàlla zu fadlin alal alamin yàlla borom xéewal la borom ngëneel la ci kaw mbindee fi yàlla moo xam li baax ci nit ñi guddeeg bëccëg mu leen koy programmeel guddeeg bëccëg mu leen koy indil guddeeg bëccëg mu leen koy sotti moom borom bi subhanahu wa taala walakin allaha waaye moom yàlla borom bi zu fadlin borom xéewal la boromi ngëneel la alal alamin ci kaw mbindee fi gis ngeen borom bi boolee mu ne walakin allah zu fadlin ala makka aw ala médine aw alal arab ah waaye alal alamin ñun bokkuñ ci ah kay xéewalu yàlla yi partout alal alamin picc yi sax ci lañ bokk ak rabu àll yi xéewalu yàlla gi day dotteeku fu nekk di sotti di fekki mala yi ci biir àll yi jaan yeeg unku yeeg si Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi yéen a ngi posone kaña mun leen ko fee jëlee wala kaña bis bu nekk ngeen posone ko pour lan pour lan pour mu dee mu jóge fi est-ce que jóge na fi mun leen ko fee jëlee sénégalais la comme yéen mun leen ko fee jëlee billaay wallaay taalaay billaay wallaay taalaay ci biir kaaba gi laa toog nii jël sama téere di jàng benn muus daan may romb nii billahi lazi laa ilaaha illa daan may wër def nii wër nit ñi di wër nit ñi ma koy xool ba jàgg mu daan dem ndeysaan daal di tëdd ci benn kii bu am ndoxum zam-zam ñu fekk ko foofu di ko tànqal ndoxum zam-zam muy naan foo xamante ne li fay nekk ci ay nit mën na ay 3 millions personnes da ngay gis nit ñuy julli nit du am fu mu taxaw julli jot nit du am fu mu taxaw naan nii di xool fu muy dugg doo gis foo taxaw nooy def taxaw ni ba nit ñi pare julli nga julli ci biir kaaba gi yenn saa yi ñuy julli nga gis ku amul fu mu taxaw pour julli nga gis fa muus muus muus muy naan zam-zam muus laa wax de muy naan zam-zam ah yàlla mooy borom xéewal yi ma ne picc yi fu ñuy liggéeyee ah xar yi fu ñuy liggéeyee est-ce que mës nañoo grève dañoo xiif est-ce que mës nañoo mars mbuur mi dafa seer ah yàlla moo leen di xéewal walakin allah zu fadlin alal alamin zu fadl bis bu nekk ngëneelam yaa ngi wàccik di dotteeku ci kaw nit ñi xoolal géej gi du jeex bi ngeen nekkee Sénégal ba léegi yéen a ngi lekk jën jën yi jeexul jeex na jeex na est-ce que boobu ba léegi yéen a ngi lekk ceeb bu xoolal tabaski tabaski xam ngeen ñaata xar mooy dee Sénégal xam nga ko xam nga ko xam nga ko ñaata xar mooy dee ci àddina bi nag xanaa kon xar waroon naa jeex waaye walakin allah zu fadlin alal alamin du jeex yàlla moo ko yore moo koy indi du jeex mukk fi mu nekk nii bu ñu ne woon tabaski jot na ginnaaw suba nga gis gaa yi yeewaat ay xaar da nga naan waaw li fu mu jógee ak li ñu rey lépp ah walakin allah zu fadlin alal alamin yàlla moo wax nit ñi ne nit ñi bu ñu ragaloon yàlla yàlla wërsëgal leen comme ni muy wërsëgalee picc yi mbir mi ci loxo yàlla nekk nekkul ci loxo nit ñi jën ñan ñoo koy lekk ci àddina bi fépp lañ koy lekk de waaw est-ce que mos na fi jeex chaque jour ma jox leen misaal ci gaynde gaynde yenn saa yi nga gis gaynde goo xam dañ laa woon ne am na juróom-ñetti fukki at ci àll bi wala waaw gaynde googu lu muy lekk ñax yàpp bu fanaan te chaque jour mu ngi dund mu ngi lekk yàpp bu bees day dàq rey lekk te chaque jour mu ngi lekk yàpp suba ngoon liggéeyul fen te moom lu seer lay lekk yàpp yéen kañ ngeen gëj a lekk yàpp tabaski lu tax du ngeen ko lekk bis bu nekk dafa cher moom bis bu nekk mu lekk te liggéeyul te yéen yéen a ngi liggéey wala wala ñun ñi ñëpp genn wàll gi ci ñun ñëpp tabaski lañ gëj a lekk yàpp wala yenn saa yi sax bu ñu namee yàpp ñu dem fay jël 1000 francs waaw dama kii yoon foofu gëj naa lekk yàpp ñu tàggal la ñetti kii tàggal la nga ni ñu mu jeex nga ne ko yow yow matul dara li matul ma alima yow nga commencé di xuloo gaynde moom du xuloo du xuloo day lekk ba suur jéggi dem yoonam dem toog fële ndeysaan 4 heures de temps yàlla wërsëgalaat ko beneen mu lekk gis ngeen kon jullit yi dañu war a delloo xel seen bopp ci yàlla xam ne yàlla moo yor mbir yi kenn yoru ko yàlla mu ne tilka lii ñu leen di wax ngeen koy dégg ci téere bii ayatullahi mooy aaya yàlla yi lii ñu leen di wax nii ngeen koy dégg muy dugg ci seen nopp yi lii tilka lii ñu ne ah mu ne ayatullah natluha ñu ngi koy jàng alayka ci yow muhammad alayka ci yow jullit bi bil xaq ci dëgg lii kat ñu ngi la koy wax waaye dëgg moo tax ñu la koy wax pour nga jóg dund dëgg pour nga jóg jëm ci dëgg nga faxasu bàyyi li nga jàpp te du dëgg nga yëlbu sotti li nga ngëpp génne li nekk say poos ak sa pas-pas bi li nekk sa xol bi nga génne ko tilka lii ayatullahi mooy aaya yàlla yi natluha ñu ngi koy jàng ñu ngi la koy jàngal yow muhammad ñu ngi la koy jàngal yow jullit bi alayka gis nga ci yow bil xaq wa innaka yow yonent bi ñu ne ah yàlla ne ko la minal mursalina bokk nga ci ñi ma yónni lii rek doy na genn wàllu aaya bi doy na yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam takk grade bu rëy wa innaka maa ngi génn ci sama màggaay yow mii ñu ne ah yàlla mu ne ko laminal mursalin yaa ngi bokk ci ñi ma yónni loolu doyul kon yonent bi yonent la yàllaa ko yónni laminal mursalin yasin wal quranil hakim innaka laminal mursalin gis nga yonent bi sàll muhammad alayhi salatu wasalam lii rek war na ne yàlla subhanahu wa taala moo ko yónni mbokk jullit yi suñ doon tënk ñetti aaya yi ñu doon jàng bu ci njëkk danañ yëg ne jihad alshar'i yushtaru lahu al imam al mubalig bayatun shar'iyatun jihad balaa jullit yi jóg di ko def dafa laaj mu am ay charte charte yooyu bi ci bokk mooy al imam al mubalig mubaya al imam al mubaya imam boo xam ne dañoo jaayanteeg moom bayatu shar'iyya jaayanteeg l'islam jaayanteeg gi l'islam wax jullit ñëpp jaayanteeg imam boobu su ko defee imam boobu bu ñu woowee jihaad ñoom ñu dem xeexi ci su ma doon laaj ci tomb bii nii ndax l'islam am na imam tey xaar ma tàmbalee ndey joor ndax l'islam tey am na imam amul imam loolu mooy góom bi gën a rëy di dal jullit yi tey te jullit ñi am imam farata la jullit ñi am benn njiit bu leen jiite loolu farata la jullit yi yépp ci àddina bi laa wax de ñu am kenn ku leen jiite loolu farata la gis nga bàkkaar bi yàlla duñ ko baal mukk parce que ñépp la tegu seen kaw tey boo doon xool àddina bi tarixa yi tarixa bu nekk am nga njiit ci Sénégal boog bu ñu ko doon tënk ci Sénégal suñ demoon ci laayeen yi am nañ njiit wala amuñ am nañ murid yi tijaan yi xaadir yi ñaseen yi canaba canaba yi ah ibaadu yi ah association islamique foo dem am na ko jiite waaye bu ñu nee l'islam nag acca wax leen ma ko jiite l'islam gaaw leen gis nga islam amul njiit tey ndeysaan loolu mooy góom bi gën a rëy tey bu tardeel l'islam diine bi amul njiit moo tax ku nekk def loo neex ku nekk loo neex nga def li ra- li nga bëgg rek wala mbooloo mi nga nekk lu ñu wax wala kilifa gi nga gëm li mu wax yow loolu la sa yoon ci keneen lu mu def yow kii loolu la wax loolu la kii loolu la bëgg loolu la wala mbooloo mi loolu lañu wax loolu la loolu du lislaam foog julli di góorgóorlu am njiit ndeysaan ñaareel bi mooy yustaratu li wilayatil kafaati wa ahamu xasaisiha al ilm wa salaamatu al aqli wal badan boroom xam-xam yi nee nañ bala ñuy fal nit di ko fal dara tey ñun bu ñuy fal sunu ministre yi ak député yi yan critère yàlla leen di tànnee amul day ñëw rek fal moo tax dañuy réccu rek ci l'islam nag bala ñuy fal nit day am ay critère bu ci njëkk yi ci ëpp importance mooy al ilm ki ñuy fal na jàng waaw ki ñuy fal na jàng barki démb bi ñuy fal jaalut bi ñuy fal taalut lan la ko yàlla defal ah xam-xam yàlla dafa teewal aadama ñett ne ko tànnal fi benn xam-xam nguur ak alal tànnal benn mbokk yi tey bu ñu fi tegoon loolu nii ñu tegal ñu nit ñi teg fi un milliard ñu ne da ngay nekk buur ñu teg fi ay téere ñu ne jëlal ah bu ñu tegoon fii ñe- bu ñu fi tegoon ñetti billet ñetti billet billet France billet États-Unis billet Mac ban la ñuy njëkk a jël Mac bi de xam naa ma xaw ma dinañ ko jël mais mooy mujje danañ jël Mac bi mais mooy mujje bu ñaaree jeexee ñu doon koy jël bu ñu fi tegoon tey tamit loolu nit ñi fuñ daw jëm ci xaalis bi yonent yàlla aadama daan ne cas xam-xam bi al ilm ah nguur gi daal di koy topp yàlla ne ko foo jëm mu ne ma yàlla man nguur laa yàlla ne ko waaw mu ne mais ku amul xam-xam mun du mun ma ànd ak moom alal ji daal ci topp yàlla ne ko foo jëm mu ne mais man man man alal moo xam-xam moo ma mën a gérer soo ma joxee ko xamul dara day yàq moo tax xam-xam mooy aar nguur xam-xam mooy aar alal gis nga tey ku amul ku xamul dara ci àdduna bi boo ko joxee alal lu mu koy def ku ku jàngulit boo ko falee lu muy def day yàq léegi nag ñun sunu nguur yi dañ leen di sunu nit ñi dañ leen di fal te nga gis ministre boo xam ne ministre bu jàngoon dem defi defi médecine ñu ñëw fal ko lan commerce wala ministre bu jàngoon football ñu ne ko ministre de commerce commerce boobu dina dem ku nekkoon docteur ñu ne ñoo def ko jox ko énergie dana dem mais nax suñu bopp ñun dañuy nax suñu bopp ah wala li mooy li ñuy naxee kii docteur en science politique docteur en science politique kooku mun lu muy lu muy def lan lay liggéey lan lan la laal wax wax kese la jàngoon wax